ñaan yàlla aussi yàlla nga xam te ni moo mën lépp te telewul euh, mu jëlee ñu fi feebar bi nga xam te ni corona mu sonal àdduna bi yëpp rawatina nag suñu dëkk bi nga xam te ni mooy la Sénégal donc ñu ngi leen di ñaan bu yàlla ñu ngi koy ñaan yàlla baax baax ci weeru koor gi mu saafaral ñu ko ba ku nekk mën a delluwaat si say activité donc ñu ngi leen di andil thème rek tey euh, ñu bëgg waxtaan tuuti ci wàllum euh, préparer suñu doom yi pour bu ñuy tukki nekk nekk immigré donc gis nañu immigré bi Euh, ñu bëri bu ñu ñëwee fii euh, surtout sénégalais yi dañuy ñëw rek intégré wu toog duñu bëgg ñibbi ou ñeen ñenn ñi bu ñu ñëw si dañuy dugg ci ay problème yoo xamante ni yu métti métti di doo dàqeeg loi bi am na ñoo xam sax dañ bu ñuy bujj jàppapee delloo leen te loolu yëpp defe naa ni lu ko waral rek mooy ñàkk préparer suñu doom yi ci immigration ndax immigration lu métti la ñëpp xam nañu booy immigré da ngay dem sa dem nga dem nga xam mais xamoo sa ñëw Euh, dans un pays comme le Sénégal am une loi mais la plupart loi bi duñ ko appliquer à cause de la corruption ba nga xamante ni nous citoyens yi loolu la ñuy tàmm ba bu ñëwee à l'extérieur dañuy bëgg ko di exercer genre indiscipline boobu mooy li l'indiscipline euh, du Sénégal l'indiscipline sénégalaise du ñëpp nag du ñu généraliser mais la majeure partie donc dañuy tàmm loolu au Sénégal ba bu ñuy ñëwee fii dañuy fekk seen tubaab bi teg seen loi ñoom du ñu loi bi da ngay mujjee am problème ak loi bi euh, amna na ñoo lañ ci mujjé dugg ci prison ñu tëj lañ fay at wala ñu yàq sen casier judiciaire ñi jot na leen ray wala waaw manam bari na ci ay problème yo xamné ne mën nañ ko jànkonteel am ño xam ne ñu ngi fi ci bi prison yi kenn xamul kan ñu ñuy génn donc yoyu mu nekk lu metti donc ñun ñoo wara préparer suñu doom yi wan leen nan lañuy ñuy waaw tukki bari na anam waaw di naa sa doom bala muy genn da koy da koy préparer parce que day dem xamoo kañ lay ñëw te ñi muy fekk si xamoo ñan la surtout rawatina si jeunes yi nga xam te ne xamuñu dara ku mel ni man mi sax ba may ñëw fii lu bëri xaw ma koon donc dama cey am expérience su bëri ba tax na tey nii ak sama expertise bi ma am nga xam ne ak li ma yàggee fii donc loolu laay jël aussi di ko dellawaat euh, suñu communauté euh, dans la communauté sénégalaise au moins ñu mën cee euh, am ab jàngat ñu mën cee ñu mën cee saafarawu ba nga xamante ni yenn lorloo dinañ ko mën a moytu donc boo jógee Sénégal boo xoolee ngay ñëw bitim réew tey bu fekkee am nga métier ñëpp xam ne ni métier boo ñëw fi bitim réew vraiment dafay dox waaw ça paye beaucoup tubaab bi lépp lay fay waaw aussi tamit ñi nga xam te dañu war a jàng bu ñu aussi jàng euh, dem ci université yi jàng bu ñu paree jël seen liggéey wut seen liggéey yu baax di liggéey mais loolu lépp koy pare mais surtout li may wax mooy la loi waaw boo da ngay tàmm di respecter loi wu jàmbur nit ki lu mu tëralee dëkkam boo ñëwee nga nga respecté loolu su ko defee doo mën nga fi dund cent ans quatre dimanche yàgg naa ko wax samay émission yu maanaam def di lañ ko expliquer man leen dëkk tubaab même boo amulee këyit sax ñoom dund la li jënte tànk yaa ngi koy teg ci yoon donc dañ ko kone di ko teg ci yoon te aussi ñu ñu nit aussi da nga am roykaay nga xam ñoo xam te ñii boo leen xoolee wala ñi yàgg nañ ci dëkk bi wala par exemple ngay déglu say parent wala ay nit ñoo xam ne ñu ngi lay digal lu baax donc ñooñ ku leen topp yaakaar naa ne doo mës a sonn doo mës a def erreur ndax tukki dafa métti ah. bëri nañ fi am na ci ño xamne tay tey ni ñëw nañu bëggatuñu sax dellu au Sénégal tellement que dañ fi yag ñi seen parents ñi ngi commencé di màgget té loolu nek la lu ñaaw donc inconvénient bu ci gëna metti moy bo boo yàggee fi ba xam da ngay européanisé wu waaw dañuy dem bo am ne dootoo bëgg ci parce que ko xamanteni yow xamoo woon luxe nga ñew fi am fi auto am fi ay téléphone yu rafet am fi ay yéey yu rafet dëkk dëkk fu rafet yow fi liggéey di am lepp mais boo defalee dank da ngay faté parce que tuba bi loolu lay teg da lay teg ci confort bu luxe boo xamante ni boo defulee ndànk rek doo too bëgg ci sax dellu fi nga jóge te ñun amuñu lu dul suñu Sénégal suñu Sénégal moo tax chaque fois dañuy sawar di dafay émission yu mel nii di dellowaat euh, suñu concitoyens yi seen xel ndax ñu mën ñëwaat ndax ñu mën dellu si ndax ñu bëri réeroon nañu mais à travers suñu message yi nga xamante ni ñu ngi koy def donc euh, da ci gis yoo xamante dañ ci gisaat seen boobu ba delluwaat loolu moo am solo donc aussi yaakaar ni en tant que citoyen tamit erreur la ñi tok ci dëkk bi di duñ dem di Sénégal lu mu neex neex neex da nga war di di ndax lool moy mëna tax nga nekk nit monde moy tax aussi nga jamais fi nga es un Sénégalais culture voilà

pour nga réaliser tax ñu bëri aussi ñu ngi parce que dañoo géej la bi donc il est bien des fois de retourner au bercail di jéem la réalité Voilà. di xool nit ñi leen di xool ses parents di xool ses xarit am na ñoo xam ne au Sénégal ils ont réussi ñu ngi donc c'est un exemple C'est pour vous dire que duñ génn c'est pas pour tout le monde am na ñoo xamante ni gis nga comme mu njëkk rek li ñu daan def yenn yenn nit ñi dañ daan ñëw di wane la jeunesse loo xamante ne amul ba tax na tey ñu bëri dee nañ ci géej bi ñu bëri dee nañu ci désert bi alors que tel ne pas la tey boo ñëwee ba fii ci voilà réalité nga xam ne nekkate liggéey rek mooy fay àdduna fopp foo mënti nekk muy Amérique di France di Espagne di Italie di fu mënti nekk soo liggéeyee rek te nga gëm ko rek bu yàggee di ci am ndam donc loolu kese la liggéey ñàkk jëriñu donc ñun ñoo war a dimbali euh, suñu citoyen di waxtaan ak ñoom parents yéen tamit aussi ngeen di nemmeeku seen doom bu leen bàyyi seen wala déggatule xamatu lu nekk del na leen jaral lu ne yéen tamit en tant que émigré da ngeen war tout le temps aussi di gëstu seen parent ndax kat ñu bëri ñu ngi ñëw fi bitim réew réussir ñu boo xoolaate ba xool amuñu ngërëmul yaay amul ngërëm baay parce que dañ naan euh, euh, say parent aussi comme li ñu koy waxee ridallah fi ridal walidain ngërëmal yàlla mu ngi ci ngërëmal ñaari wéy ji donc bu leen fàtte jamais seen seen parent ngeen di leen jàppale su ko defee aussi ngeen di déglu seen conseils yi rafet yi ni leen di jox su ko defee yéen boo leen nekkee bitim ngeen di wut ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk te fas yëpp fi lañ déparé mais Sénégal bi mooy arrivé moom laa leen di wax sa su ne ngeen bañ ko fàtte ndi amul lu dul sa dëkk donc sa alal fa war a man samay vidéo yi may mës a def ak samay émission loolu laa leen di soññ saa su ne ñu bañ a fàtte parce que dëkk jàmbur wóorul euh, yaakaar naa ni événement événement wu naar yi Mauritanie loolu waroon nañu jàngal leçon yu bëri bëri Sénégal yu bari yoo xam ne dañ fa investir woon te mu ñàkk nañ lu bëri am na ñoo xam sax dañ cee faat seen bakkan donc rawatina nag ñun mi nga xam ne on est des immigrés nekk fii on a la on a la tête sur les épaules donc dañoo bëgg suñu dëkk suñu Sénégal rek la ñu am lu mu mën ci men foofu la am on a des défauts rien n'est parfait dëkk yeb bo gisee bo ci gis parfaitul mais amna ci côté bo xam lu bax la moy on a le sociable on a la religion on a on a on a nos ressources naturelles donc euh ñu soxla rek moy xam-xam bi ak touti copar inshallah allah bu ñu ko c'est euh, de nga xamante ni bitim nga on a l'opportunité donc ñu andi ko au Sénégal ñu mën a créer un emploi lu mu tout tout rek mën nga ci jël au moins même bu dee benn nit la wala n'y nit wala ñetti di contribuer cette économie donc ñëpp xam nañu euh, à travers tout le monde entier que Modou mode de wax dëgg yàlla des milliards et des milliards au Sénégal donc ñun ngàcce gaarama ci ñun ñu ngi fay dugal xaalis bu bari parce que dañoo fonk suñu dëkk donc mais ci biir loolu aussi il faut que xam nan la émigrer ndax aller gis retour voilà li liñ naa nag boo xelul ñëw di nga xelu ñëw donc nañ teg xel ñu mën a ñëw donc li may wax euh, toute la diaspora sénégalaise di leen delawaat encore euh, di leen soññ saa su ne nañu xalaat suñ dëkk xam ne foofu rek la ñu am ñun Sénégal la ñu am moom la ñu ndamoo moom la ñu tiitaroo donc suñuy doom yi nga xam te ne ressortissants saa ñu ngi génn na leen gën a xelal surtout ñu préparer le balaa ñu tukki ñu tok tok ak sa dom expliquer ko parce que la tentation elle est très forte fi biir biir euh, biir Europe waxtuma la Amérique ndax nga xamni ne pap gisoo fi yaay gisoo fi kenn soo seetaanoolee ay émission yu mel wala nga gis ne ku baax ko xam te ne tooxaru nag yow da la yedd ba matul di nga sanku ba ila yow dini te billahi ñaan ñaan ñu ko yàlla kenn ñu fi kenn ko xam te réer parce que kep ku fi nek rek yaakaar naa ni suñu dom la waaw ñen ñi mun nañ nekk suñu doom ñenn ñi mun nañ nekk suñu sët donc euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di ñaaxaat bu baax a baax di leen wax ni na ngeen teg euh, fi ngeen war a teg seen tànk ngeen déglu ñi nga war a déglu àndal ñi nga war a àndal te boole bu ñu ñëwee aussi si dëkk jàmbur nañu réglé na xam ne bitti bi problème kese la li la di wax outside only but trouble waaw jàng toog sa biir kër jéem a réaliser loo am nga yónni ko sa biir ndëkk comme li koy saa saa di faral di wax saa su ne kelen lay am mbaq leen la dem nga xam ne bés boo dem ba xam te ni gis nga ni màgget ñëw na nga mën a takk say bagage ji bi ñaata sénégal ñoo fi nekk ñoo xamante ni euh, yàgg nañ fi trop dañuy dem ba nga xamante ni dañoo adapté c'est fini parce que kenn waxu leen dëgg ils n'ont pas réalisé man gis naa ci ñoo xam ne dañ may wo dama expliqué ne ma grand man lii ngeen di lii ngay ni su ma ko xamoon ci kanam wala dix ans ci ginnaaw kon heure bi fekk na ma dépassé loolu lépp amul solo parce que ñii nga xamante ni ñoo leen waroon wax dëgg waxuñu leen dëgg waaw parce que sénégalais ñëpp xam ne ñun ab soxoro ñu sonal ak iñaan te yaakaar naa ñu ñëpp ñoo ko xàccandoo dóorandoo

Euh, Batika di nuyu euh, Sokana bu waa Street Life de Dakar vraiment ñoom tamit ñu ngi liggéey liggéey bu rafet di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni daal ñu ngi bëgg avancement Sénégal ak ñi ni euh, ñu ngi def émission sur l'indiscipline des Sénégalais ñu ngi def liggéey bu rafet donc maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen rëbës di leen wax ni ñu ñëpp ñoo bokk même liggéey liggéey bi yëpp liggéey bu noble la liggéey la boo xamante ni ñu ngi bëgg lu dul rek suñu Sénégal di avancer donc euh, ñi nga xam te ñu ngi ñu bëgg fekk si suñu groupe telegram euh, nañ ñu euh, nañu téléchargé telegram su ko defee man am si suñu lien mi ngi suñu page di ngeen mën a dugg ci lien bi ngeen fekk suñu fa parce que ñun presque tout le temps chaque semaine ñu ngi fay génnee ay thèmes di ci waxtaan di gën a yee askan bi donc ñi ñu bëgg a rejoindre ñu ngi rejoindre foofu incha allah donc lii laa andi woon comme thème tey incha allah très prochainement di leen leen andiwaat beneen thème a neex donc ñi nga am ay thèmes yu bëri yoo xam ne chaque fois ñu ngi koy bëgg a bëggal askan bi yéen mi tamit di auditeurs yi di seetaan soo leen amee ay thèmes yoo xam ne yéen a ngi a proposé ngeen proposé ko incha allah su ko defee dinañ ko def émission waaw man la seen mbokk Mohamed euh, depuis Atlanta